moo yor oto père Djibi waaye na daw waaw eh. Eh. non ñun ñoo war a nekk fële ah ñun ñoo war a nekk fële fële ah ana Brosse Samb moo nekk fii Brosse moo topp ci père Djibi si Samb Samb oto père Djibi la déedéet Samb mi Lamine moo yor oto père Djibi Olha a perna. nga taxaw nga ralentir. Uy, bàyyi nii waaye lii kaw boole eh eh eh. taxawal bul dem taxawal taxawal. ci duggee jàll. surveille ma sa sa sama droit. sa tubaab bi waaw. non non sama droit bi. odaj ile ujdzie. Tak, on by było. Thank you. dara booy. saa boobu day day gën sa portable la. non non non non non non maa ngi ci bàyyi xel. gisoo mën a bàyyi leen ginnaaw. da ngay dem ba seetlu yow. ah da ngay dem ba seetlu. ah man booy booy da nga yor numéro système système. dama ko waxoon leer sama ordinateur. mu ñëw ma ko quoi. Gale Pros. yow Gale Pros nga yem. ah mais bien sûr sama ordinateur. waaw. boobu la ñu def bu ñëwee ak ñoom. Bakary sa borom lu xool suuraale ko quoi. kii moo daw la kii moo ko yor ko doon mais kii dawul dara ah. dawul waaye man sama borom dama ko baal sama saako ci kërëm laa jëm quoi waaw léegi nag damaa amul ba xam ah. léegi soxna jox d'accord léegi man maa ngi fii ak fan ci billahi wallahi billahi wallahi jaajëf jaajëf merci dañuy sor nañ de man daa ay seen tënk yi la biir yaa ngi biir yaa ngi nee de booy. booy booy booy. pick up bee rek pick up bee léegi pick up la. xaw ma de dama doo doo wàcc na jëndi ko bu fekkee baax na ñu dem. ah non du pick up du pick up si biir lañ nekk. ndànk ndànk nañ taxaw ba mu ñëw nañ taxaw ba mu ñëw. nañ taxaw ba mu ñëw nañ taxaw ba mu ñëw. amaat différence.

ñoo ngi demandé ñoo ngi demandé. dugg ci oto yi de mais li ma waxoon day dellu quoi. en fait dafa am ku mu ànd ku mu àndal di liggéey quoi léegi dafa am ay bagages yu ma nekk bu boobaa bàyyi mu ngi daal di quoi dafay Thank you.

Allahu Akbar waaw waaw waaw je sais waaw ok d'accord c'est bon. yaa ngi suivre live bi wala ba léegi nañ taxaw nañ taxaw nañ taxaw laay laay nañ taxaw nañ taxaw the ball girl. Like, you know what I'm getting. Come on,

waaw baaxul génn bu génn rek mu dem pour nga dem ay wax mu dem waaw ak yàlla doo ko mën. président moo ñëw xajal leen. Thank you. Allô Allô Oui. ok ok ok ok y' a pas de souci y' a pas de souci. ça va on est là ah fatigué rek mooy loolu. c'était compliqué avec trop de monde mais malheureusement aussi ils ont brûlé le réseau. on avait on avait même pas accès à l'internet pour voir tous ces trucs comme ça là mooy loolu. on est là à Malika on est en train de faire la plongée. il y a trop de personnes quand même. beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de département waa moom police yi voilà mooy loolu léegi léegi ñuy def beneen bi peut être bu ñu jëlee beneen bi moom dina yomb xam ne moom daal ñuy daw bu baax moom mooy envoyé naa la ko mais ba si tu veux aussi tu peux laisser combat léegi ñu nekk beneen bi aussi il faut pas après si beneen bi tamit de ah, voilà daaw bu ñuy gaaw est ce que di nga am li nga bëgg ci laaj bi waaw doo doo dégg nga doo mun a waaw lii ok voilà jël naa yu après jël naa ay perte ay kii comme ça nar maa may xool. d' accord. Thank you. non mais sérieusement Macky daa waroon dañuy xool ak xool. waxal naa ko. non dama ni Macky daa waroon am fulla ak fayda rek organiser dimanche élection lu ko lu ko yàlla may mu xam ne loolu la rek dimanche quoi gëm yàlla dimanche kii ko. doo doo sëgg tuuti wala nga wéeru fi. waaw waaw ñu ci ginnaaw am na ñu nekk ci ginnaaw yi fees na bàyyi lu wóorul waaw taxaw jël suñu ginnaaw jàmbaar baal ngaa jege si waaw da motar sau nan Ini. Ana wo. Ah ah nañ dem ba fer ab jox. Yow yow fo yaatu. Are,

Ayo, ayo. Ayo. petit Diop Diop muy dellu moom. mbéy mi sama gars yi may maa maa ko déglu waaw oto ci la maa koy war a nekk I'm not going to be done.

boy boy boy boy boy kii da dem kaw boy ka boy ay dama ñëw boy dama ñëw dama am oto yu yi dee man kanam man maa ngi jëm jëm jëm jëm si bopp. ah. waaw waaw waaw.

up quoi après on va vous donner le petit non non quoi bah allez ci la ñuy yëg de gars yi dama lépp ñëpp ñëpp pour ñu fee yëg de saa waay waay dafa ñu Thank you.